bàyyi ci bàyyi fenn ak ni ñu bàyyee. Mhm. ak bàyyi bi ñu mu ñaawee. Mhm. ndax bàyyi bu ñaaw la nu bàyyi ah, bu ñaaw ay problème police am ci justice bu ne am ci. ci ci 2019 man mii dem naa ci dig man mii ko fekkee nañ ma ci dig ci ci boobu jamono jooju loolu am. da ngeen caa lekkoon xaalis xanaa. lekk xaalis bu ñu lekkee xaalis nañu génnee ne dañu lekk xaalis lekk xaalis amu ci loolu kay on est blanc comme neige moom amul ku ñuy wax ci lekk xaalis moom ñu génn dem bi nu demee. mais politicien bu ne bëgg nga bëgg nga mouvement bu toll noonu ak ay jeunes ñëw la ci la ñu président Macky Sall woo jaare ko ci benn ministre bi mu nu wooyee ñu ñëw xool ne lim ñu teg nii mën nañ ci ànd ak moom liggéey ñu ànd ak moom liggéey bañ kooku aussi bi ñu demee ba xam ne kii lim ñuy wax dara bu ci dëgg danoo bàyyi toog suñu biir mouvement samp suñu tànk taxaw. ba ngeen duggee ci Macky Sall da ngeen a arrêté dem to dañoo arrêté toog. lan moo tax ngeen arrêté. parce que conviction yi ñuy demee ak gëm demee buñ rek dañ lay bàyyi. ban ministre la woon. non du ma tur tur man dama ne bi ñu ministre bi àndee bi ñu demee ba xool ni kii kat ñu ne moom bokkuñu bokkuñu. nit ñi doxal ragal moo tax doo tudd wala ja wala boobu dafa am mu fa demee woon moo tax ragal man ah lan moo tax doo tudd boobu kay da ngay parce que ñooñu nekkatuñu ah, aw dama ne ci dama ne ci politique te mu nekk loo xam ne liñ ci bëgg ëllëg mooy jeunes yu mel ni ñun yeewu ci réew mi ñun kenn dootuñu nax moo xam parti au pouvoir moo xam opposition damaa bëgg mu leer. léegi léegi ñëwal bi ngeen bàyyee foofu si ngeen dem toog. te lañ dem toog bi nu demee toog ak le mouvement Sénégal rek yàlla dogal sunu kilifa xam nga ko. muy kaan eh, eh, Ibrahima Koulibaly ma ko nuyu de passage. Mhm. yàlla def diggante mi ndax yàlla muy def def xamee. Mhm. diggante mi ak Mamour Diallo. mu rafet nag lool nag mu rafet lool man damay wax naan ci politique. li nu li nu DG Mamour Diallo defal ci politique kenn suñu ko defal ndax yii fii du teraanga waaye yëg-yëg la ba du ba mu mën a jaar si tur nga am malaat mu mën a ñëw nga am dese mu mën a ñëw nga am ngénte mu taalay otom ñëw fekk si la kooku amoo fayam du alalu àdduna ndax am na ñoo xam ne joxuñu nit dara te te ñu ngi koy topp mm-hmm. ñu bokk moom nag ngëm-ngëm bokk ak moom ay gis-gis looloo looloo sabab su su suñu diggante ak Mamour Diallo. ba ngeen nekk doon liggéey. waaw ba ñu nekk doon liggéey te ba tey ñu ngi liggéey. ci législative yi ba léegi yéen ngi liggéey. waaw ci législative yi yi nu nekk ci lay daanale bi yàlla dogalee mu neutre ne dugg ci benn. Mhm. ci la jàppale suñu doom bi ñuy wax Parcelles Assainies ko tudd Cheikh Ahmadou Bamba Diop. mais lan moo tax mu neutre. parce que ma Sall. dem waaw li tax mu neutre. intercoalition kenn ku nekk kenn ku nekk da nga am say conviction a say ngëm-ngëm. Mhm. ak li tax. Mhm. ndax lu ma lekk ceeb moom doo ko ne doo ngay lekk ceeb par mhm. moo bëgg ci moo bëgg neutre mu neutre. mu neutre waaye ñun dolli Macky mu ngi ci ginnaawam ndax moom moo ko yor mouvement boobu waaye ñun senegal rek. passé lañ dëkk duñ toog di seetaan ci législative toog duñ toog di xool ku ñuy mëdd ci la ñëw. jàppale tëdd si bu ñuy wax Cheikh Amadou Bamba Diop mu jaare ko ci Maguette Sène DG euh, euh, maire Malicounda. mais dégg naa foofu nag euh, Marco maa ngi koy nuyu de passage moom moo yóbbu Cheikh Ahmadou bàmba ci ci ci ci Maguette Sène ci Malicounda lan moo tax mu def choix boobu. waaw li tax mu def choix boobu. te moom mu munoon yóbbu boppam wala mu munoon leen yóbbu yéen lan moo tax mu def choix boobu. waaw mu ñëw ci choix boobu waaw. Cheikh Amadou Bamba day doomi parcelle. Mhm. def parcelle lu ne nag. maa ngi koy nuyu bu baax. jëf ci jëf lu ne dimbali femmes yi def ci ay financement borom allopatrie. Mhm. def liggéey bu am solo. Mhm. responsable pneumatique foofu ca ca ca ca ale ale Papa Gueye Fall muy nit ku baax. nit ku bëgg Parcelles Assainies. Marco di di di borom mouvement bëgg Parcelles Assainies ñun ñu bëgg parcelle. ñu ne ñun ñoo toog di neutre en tant que mouvement léegi dañuy dem jàppale nit moom bi mu xoolee ba xool kan laay kan laay teg. ci la am choix ci Cheikh Ahmadou Bamba Diop nit ku ne am na droit boobu mhm. dem proposé ko Maguette Sène Maguette Sène nangu choix boobu ñu ànd ak moom liggéey ndax mhm. loo mën a wax wax ci àdduna Maguette Sène moom la ñu nommé woon le meilleur maire du Sénégal loolu ñëpp xam nañ ko mhm. mu ànd ak nag ñu ànd ak moom di liggéey daanaka ci porte à porte yi sax nga ñu fekk te bu ñu jógee nii fa la ñuy delluwaat ndax moom la ñuy jàppale mooy Cheikh mooy tête de Dakar mooy tête de liste département de Dakar muy Sénégal rek nag ñooy jàppale Cheikh Ahmadou Bamba Diop kon yéen seen mouvement bi kese ñoo koy jàppale. mouvement bi kese ñoo koy jàppale waaye mouvement dolli bi le DG Mamour Diallo jiite boobu Mamour jàll daa toog. daa toog neutre te bu ñu woon suba suba suba suba ñëw leen ñu daw ñëw. ngeen bàyyi baam ba daw dem. ñu daw ñëw parce que mooy sunu mentor ci politique nit day gore ba dee. Mhm. loolu la ki dugg léegi wax. Mhm. ne politique boo ci nekkee soos bu ni nga bëgg cee dugg day xale di nga dem fenn duñ la nawloo. nawloo ngi noonu mu moomu nawloo te mouvement bi Maguette Sène andi sax ànd nawle la tudd la marche des territoires. àndu nawle ngeen ko tuddee. waaw àndu nawle kon loolu mooy nawle nawle mooy kii toog fen ba daxaar fekk la fa nga màcc ko ak kaani bu la fi lem fekkee toogal waaye fu nu nga tuut càpp fa bu ñuy bu ñu la woowee émission da ngay daw kon awa. kon daal yow noonu nga tuddee àndu nawle. àndu nawle. léegi bi ngeen defee àndu nawle boobu lan moo est-ce que yéen parcelle bëri woon na ay leader ndax euh, yaakaar naa caabi bi moo indi Marco ak Bamba seen xaritoo dëgg la caabi bi moo ko indi woon dëgg la waaye caabi bi tàqale na tey leader yu bëri Parcelles mm-hmm. Assainies mm-hmm. Kéba waaw xam nga man lu jëm ci caabi bi mm-hmm. du ma ci sori parce que samay kilifa fa nekk su may su may leader ñoo fa nekkoon man di nuyu ñoom ñëpp de passage di nuyu ñi ci nekkoon ñëpp góo fay kori fay nuyu naa ñoom ñëpp bëgguma bëgguma lim. Mhm. waaye ab mhm. ànd yàllaa koy def ab déggoo yàllaa koy def. Mhm. mën na am par exemple Marco ni mu déggoo ñëpp noonu mu déggoo ñëpp am amaana ni mu dégg Bamba. ba mu jël choix boobu porte ko ci moom. loolu dañ koy rafetlu. loolu kese am na solo ma jël euh, téléspectateur bi nekk ci ligne bi bu ma ko régimé rek wax dëgg yàlla ndax nee naa leen yëf yi seen yëf la macha allah ndax émission bi nii la tous les jours rek ñu jàkkaarloog benn invité boo xamante ne. dañuy waxtaanee actualité allo salaamaaleykum. maaleykum salaam naam maa ngi lay nuyu di la ziar. non ne Ami Faye maa ngi lay nuyu. ça va mi ngi lay dégg. waaw oh, maa ngi lay dégg baax yokkal baat bi Ami Faye. ana ah, <laughs> kan moo daw noonu. Sakura Waale ci loo maa ngi sant yàlla bu baax soxna mi. accrobatie bi président Macky Sall yow de yow de di nga xam lu ngay wax yow. dëgg la. ndax ñu nga àndal dañ koy def pour mais ñu fi deful dara moom xam naa yow yow moom jàmbaar président Macky Sall Mamour Diallo Macky Sall moom bëgg nga leen lool. dëgg la. ngay jàmbaar lool di politique ci fula ak fit. dëgg la. saaga woo dépassé woo te yaa ngi doxal. dëgg la. loolu lañ soxla ci ndaw buy politique bul saaga te bul wax te yaa ngi yaa ngi leen di firit faraj ni mu gën a neexee. dëgg la. Ah, ku nga war a janoo ci émission am ñëwul dafa am kii empêchement. amul empêchement APR mënul dañoo waa Sonko waa Sonko lu ñuy wax ko bu ñëwee lan lay wax amul lum wax. waaw lu tax nga ne amul lu mu wax. daa daj gay nga toogal foofu nag awkat awkat ku nga invité daa xam lu muy wax te te man ko. xam nga man wax dafa yomb mais da ngay xam lu ngay wax te man ko. Mm-hmm. moom cause ba Babacar Fall du ñëw dégg naa sax sëb la bokk nag mais du ñëw de. non mais saa ko waay kontaan naa ci la yàlla yóbbu la ba RTS télé bu mag bi waaye yaa ma a baax. amiin amiin amiin bu ne tubaab loo bokkal tubaab bu ne koy la ko baax nga bu dégg olof la dëgg la dëgg <laughs> na la ñu bokk ko ñun ñëpp. amiin yàlla baax na dee leen ma doon la ñaan rek. merci beaucoup nekkal ci jàmm jërëjëf kontaan naa macha allah ma koy nuyu bu baax wax dëgg yàlla muy nit ku baax ami fay ndax nee naa wax na ko léegi euh, dañoo yàgg 2008 ba tey la nga xamante te dara ñaawul maa ngi lay nuyu fay biram penda maa ngi lay nuyu bu baax fi nga nekkoon. xam nga son aw dafa am lu am. Mhm. ci ñun suñu ànd. Mhm. muy ànd nawle bi ñu ànd. ànd nawle est-ce que amati na ci politique. Kéba Badiane. wa waaw mais bien sûr. am na. am na bien sûr xam nga la moo tax. gis gis nga bu ngeen àndee. Hmm. ci programme. Hmm. teg lu leer. Hmm. bokki jikko. loolu tax exemple Marco. ànd ak mouvement bi ñëw jàppale Cheikh Amadou Bamba Diop. ndax quoi qu'on di dire Cheikh Amadou Bamba Diop am na lu mu def parcelle. am na lu mu def parcelle am na lu mu liggéey parcelle. école bii nga xamante ne mooy unité 22. kenn ku ne xam ne ñi fi nekk nga xam ne biir parcelle la ñu nekk jiite parcelle. biñ leen waxee école 22 def leen ci nangam dañ ne ñoom duñ ko mënuñu ko parce que buñ ko defee dañ ko defal école yëpp Cheikh Amadou Bamba moo jël charge bi joxe fa ay cahier joxe fa ay ordinateur joxe fa ay fourniture complet jigéen ñi mu financé leen ba financé leen 15 millions kon kooku boo nee parcelle dëkk daa bëgg gox bi bëgg réew mi da koy gëm xam nga ñoom ñu ci bari li mu leen di wax <laughs> neen man mosuma gis seen leader mu joxe ginaar day laaj rek moom te joxe politique awa dafa ànd ak social mais xam nga lu lan la fi bëgg dindi mhm. social boobu man musumaa gis man bu amee nañ ma ko wax man musumaa gis ay nitu positif ah ñu ngi def waaw déglu ma ma ñëw déglu ma ñëw seen kilifa laa wax bi mu commencé mhm. amul benn société bu mu ubbi bu ñaari nit liggéey amul benn preuve bu mu teg ci li nga xamante ne ci mbirum social la ba ñu ne lii kat fondement nangam fondation nangam nangam ñoo ko def amul mouvement yi ndaw yi sax ñi ngi jëm Ah mais yàggagu fi nag. non non ya. 6 mois yàggagu fi nag. waxuma 6 mois bi de yow nga nekkoon inspecteur impôt demal nga ne ma 6 mois man li may wax nii avant 6 mois bii ngay wax la. mais boobu nekkul est-ce que boobu commencé wul woon politique yow tamit nag Kéba Badiane. commencé wul politique naka naka sax yow nga commencé politique depuis en 2014 la Pastef sasu aw ñu dañoo am information de depuis 2014 la Pastef sasu te bi mos a ba bi moom xase la ak ak ku am yàlla ku yàlla teral nga ne sàcc la. mille milliards yi mu wax nu ngeen ko jàngatee. alhamdulilah rabbil alamin damay ñëw ci mille milliards yi tuuti ndax. Mhm. ñun danoo jàng même suñu jàng bu soriwul ay jeunes la ñuy yeewu ñun duñu duñu duñu duñu duñu ñoo xam ne dañ leen jiital ni ñuy dem. Mhm. gisoo ci senegal benn bank mhm. bu benn nit am compte mille milliards. banque yi CBAO groupe bugguma def publier. ngeen baal ma. Hmm? Ah, yaa ngi def publicité nag. kon kon naa bàyyi foofu banque hmm. bi ci gën a mag. Hmm. moo ci am aux alentours luy tourner mille cinq cent milliards te trois mille et quelques personnes ñoo koy moom ñoo ko moom trois mille et quelques personnes te day te day daw du taxaw du xaalis bi taxaw ndax yow da ngay dugal tey kii kii jël ki versé kii dugal kii jël kii versé ki dugal mu mun a am na compte bu am mille milliards waaye nag du ma bett xam nga la moo tax dafa commencé six mille milliards six mille milliards la commencé. Mhm. commencé vingt neuf milliards. commencé quatre vingt quatorze milliards. commencé mille milliards muy sept mille cent vingt trois milliards ëpp na budget Sénégal ci ñeenti nit ci ñeenti nit ñii. Mhm. aux alentours boo calculer xaalisu Neymar footballeur footballeur xam na li may wax. Mhm. Ronaldo ak Chris matul loolu directeur yi du ma bàyyi ma fen xanaa DG ndax footballeur <laughs> du ma bàyyi ma fen kon yow na nga mën a waxee ci benn compte benn nit moo am 1000 milliards. Mhm. say ministre taxaw di ko dëggal waaw say doom lañ loo wax loolu la ñuy wax loolu la yàlla dogal. Mhm. mais loolu campagne la loolu sax nekkatul débat parce que campagne boo xam ne moom moom moom da koy campagner. xam nga jët sétérés man laa ko tuddee parce que mooy koo xam ne bu toogee ci ful bu gisee ful rek day kontaan day wax ba wax loo xam ne waru ko wax day tudd ay xoola rebel yi nga xam ne ñooñu ñoo ñoo wax démb xam nga ne ku ne war naa tiit léegi ñu bëgg jël ñun suñu majorité jox ko ñii gis mun ko defee dafa am bu ne ma. mun ko defee danañ def loo xam ne danañ ko rëccu ñun. du tax ñu koy rëccu nag dañ ko rëccu. parce que yow yaa ne woon opposition bi moo war a am majorité assemblée ku la ne opposition du am majorité assemblée waxul dëgg tey nga taxaw weddi loolu ba mu set yow loo mës a wax ak loo mës a def. weddi nga politique la nag Kéba non non. politique la nag non mais moom dafa ne dafa ne daa am ku muy roy Seydina Mohamed dëgg rek ci la ci lay dox barke alxuraanu karim moom dafa moom moo ko wax daa am ku may roy kon nit booy roy man de man de Cheikh Saliou Mbacke mi soxna Fatou Diakhaté mi may roy li muy def rek laay def bu nit boo amee koy roy da ngay fas yéene que na koy royee mu nekk ci njub ak ci dëgg awakan islaam dafa ne bàyyi fen daa gën jaamu yàlla hmm. bàyyi fen daa gën jullee ki woor ak nat asaka te doomu aadama yi léegi moom lañ def ndoxum naan. waaye fen day yëngal aras. da ko yëngal yàlla musal. da ko yëngal te kenn ku nekk chaque jour moom mi ngi wax ay wax yu bokkul chaque jour ko jëfe chaque jour ko jëfe nee naa la maa yor 1315 var. <laughs> kon yow yaay 1315 var est-ce que duñ ko changé def keebaar var boobu. maa ko yor man lu ma mës wax topp naa ko bokkuma ci ñu koy ñu dul suivre man damay suivre ndax damay jeune boo xam ne du ma du ma ngaaka du ma nangu ku ma nax defuma fan. man faaw ma seexu sërifu nii rek jëluma ku kànda ñëw fi rek ma faa ko di dem naw ma ci loolu man na ma ci faa réew mi la bokk ngay nga yor 40 ma yor 40 déjà yor ko imam yor ko ni ko ku nekk yore moom mu yor ko gënuma ci réew mi gënu lew ma gënu ma ndey gënu ma bàyyi kon bu suñu réew buñ ko joxe ay nit dañ leen di saytu moo ne woon tànk ak tànk mbag ak mbagg kon tànk ak tànk mbag ak mbagg def waaye boo mënu dañ leen mënu li nga fi wax yaa ko fi wax bari nga yoo wax defoo ko LGBT yi sama yaay yi ak sama mbokk Saalum Saalum meeg bool bool yi xamul LGBT mooy góor jigéen ngeen baal ma moo ne da koy criminaliser moo ko waxoon waaye avant mu koy criminaliser daa am xew Mélenchon daf fee ñëw. ñu dalal ko te kooku mbirum góor jigéen rek lay dox. te ñu ne ci àll bi boo leen waxoon Mélenchon xamuñu ko. mooy hmm. ñooñu rek laa yërëm ndeysaan xamuñu ko te ay nit ñu baax ne ci àll bi. Hmm. ay gor ay jàmbaar ay liggéeykat mais dañuy fan ndax TikTok. ndax Sénégal lu mu xool rek li mu koy gis lu bari rek kooku lay kooku lay topp mhm. parce que waa ji moo génn moo daan wax benn boo ko yaakaar seen communication